mbokki internet yi safoo setaan AGT News daleen nag jàmm laaj bi ñu samp tey mooy ndax président Macky Sall ab démocrate la nekk na ab président boo xam ne depuis biñ ko gisee ci 2012 ba tey képp kuy ab opposant rek moom mi ngi lay jéem a éliminer moo waral ñu samp boobu la laaj yéen internautes yi ñu leen ciy laaj seen ab xalaat ndax président Macky Sall gis nañ ni Karim Wade éliminé na ko éliminé xalifa Babacar Sall boobu ba tey mi ngi def le tout nga daal di fexeel ki nga xam ni ma di Ousmane Sonko ñëpp teg ci seen ay gët ñu indi dossier bi nga xam ne moo ñeel Sonko ak aji Sarr ñu gis ci changement yu bëri yi nga xam ne am na ko ci wàllum version yi nga xam ne ñooñee ñoo nekk témoin yi surtout ki nga xam ne moo di aji Sarr mi ndey mbill ji moo waral ñu samp boobu lépp laaj ndax le président Macky Sall ab démocrate la ou pas est-ce qu'il est fair play par rapport à la démocratie loolee mooy laaj bi ñu samp fas yéene ci tontu ci jàngat bi nga xam ne moom la ñu di dégtal Macky Sall ndax démocrate la te ba noppi itam ndax Ousmane Sonko nekkul opposant bi nga xam ni moom moo ko jaaxal surtout ñeel ab succession am ndax dañuy faral di wax naan nguur gi nga xam ni dafa war a daanu ki koy remplacer moom moo koy créer ba noppi moo koy may doole. ba tax na kaddu bi nga xam ne Aïssatou Diop Fall waxoon na ko ne Macky Sall le directeur de campagne de Ousmane Sonko dinañ ci addu itam indi ci ay leeral ci jàngat bi nga xam ne dinañ leen ko dégtal. mbokki internet yi safoo setaan AGT news abonné leen ci suñu chaîne saa su ne ngeen dem ay xibaar ak i jàngat yu wér te